bismillahi rahmaani rahiim inama sabil wala tujadilo allahu min kulli karimin akramu manama on qadalo takaramu aslim lo kullaka an imani wala simil ihsani lirrahmani wajihu bisukri bila kufrani tufa isabu man nirani واجي بي بلا كفراني توفا حساب ما نيراني جليدي بوكي طالبي واكر شيخ احمد بام مبك خادم الرسول تي نديغال اك كليفته فو خليف جنرال دي موريت يالنا يالا يوك فنام يوك ويرم بامو اغال اي مبتام نونغي في توبا دار خدوس كر سيرن محمد المصباح موم شيخ محمد البصير موم سيرن ابرا جور لولو تا نيما جاكار لول نين خامني نجار ندي خيولا واتنا dar maa ngi ko xewlewaat na ña daron yonent bi sallallahu alaihi wasallam dar cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasul te serigne touba ñewon te dekk ba amalon fa ngan gu rëy béréb mu nekkon nak te serigne misba amar don dundal njarnde don feñal ndam ak jaloore ya nekkon ci njarnde joge won ci ay wayjuram ba ci ay mamam mu don ca taxaw jonn ngan goge mom lañu jappat muy bisub alquranul karim bu andak ay khasida ñu wara tek barabu barabub touba bobé lora wara nek alarba ñenti fan ci wéru avril 2018. yéen sama bokki njaarnde yëpp maa ngi leen nuyu nuyu mu gën a sell te di leen soññi di soññi sama bopp bis boobu nga xam ne ñu ngi koy woote ci njaarnde maa ngi ciy jëkk a soññi sama bopp teg ci waa njaarnde ñeen ñi ma bokkal dëkk boobu di xamal ne noo ngi ñëw te liggéey bi ni liggéey noo ko bokk kenn waruñu caa jiitu noo ngi di sàkku ngeen dalal gan te jàpp ci lu ngeen man kenn ku ne nak lu muy japp lam man lay japp waye nak lu ci way jappé ta man ko rek baxna no nga len di fas yéene fekk si dal liggéeyal seigne touba bara bobu nga xani mom moy bu tedd bi su sedd so su nek no nga fas yéene defar ci ko ci kàttanu yalla joxoñu seigne Modou Misba Amar mom la wa kërëm bëgg a yeggale dañu and ak ñom ci top ci seen gënaaw nu ko fam ko bëgg won na fa yegg ci barke seigne Touba. nuyu julli mbokk di len yëgal ne di sëñ Misba Amar mu sëñ Muntaxa mu sëñ Basiiru sëñ Misba Amar koo xam-xam sëñ Muntaxa ñuy woote tegu xeer bu nga xam ne la 4 avril la bu doon may wax ci kàddu jigéen ñi di ci jiitee soxna Assa Amar ak soxna Ummi Amar ak soxna Busa Amar ak soxna Aseetu ak soxna Ndey Xadi Amar mii ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci wàllu waañ wi muy soxna ab sa pen ak mboolem ñi mu àndal te daan nekk ci waañu sëñ Misba Amar mi ñu ngi leen di soññi di leen ko yëgal bi nañ ci daan japp bu baax nañ ci japp tay mu gëna baax ndax dañ ci daan japp lool rek la leen doon yëgal di leen ko yëgal jërëjëf cheikh ahmadou bamba mam khadim rasoul bihi wa salama tasliman jërëjëf cheikh ahmadou bamba mbàkke mam khadim rasoul ah ni ko suñu doom ji waxe legi mom lay euh, eggale rek di ci wo njabotu mama ndagu gi yépp nga xamanteni ma leen fi teewal ji euh jital ci ki nga xamanteni modi cheikh fati gueye mi nekk euh, mbàkke sëriñ xaadim Amar moom sëñ Daaru Amar sëñ xaadim asta mi nga xamante ne moo fi toogal Baye Cheikh ak ñi fi toogal sëñ Amadou Amar muy Modou Amar ak Baye Cheikh Naar ca Paate Baye Paate nekk njiit li ma ñëw teewal leen fi ñoom ñëpp waa kër Mama Ndaagu laa fi teewal di woo. waa kër maam Ibra Dior waa kër Paate Dior waa kër sëñ Mama Dior waa kër Ndongo Dior ak waa kër maam Anta ñëpp ñi nga xamante ni. ñoo bokk suñu maam Binta ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn. ñu ngi woo Darmanko yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi cosaanoo ci njarnde ak jéemul. ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp njabootu Mamandaagu yëpp ñu nekk ci biir dëkk bi yëpp ñu nekk ci biir diaspora yëpp maa ngi leen di woo euh, bisub 4 avril boobu ñu xam ne suñu ndam la ndax suñu maam yi ñoo nekkoon ak sëriñ Touba ñuy eggale seen liggéey bi nga xamante ni dañ koo naaloon. Euh, ñu jéem a fas yéene euh, teew ci bis boobu euh, sargal fi suñu waajur yi fi nekkoon ak suñu maam yi fi nekkoon ci diggante ñoom ak Cheikhul Khadim ak maam El Hadj Malick mi nga xamante ni ñoo nekkoon foofu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sant Serigne Touba Cheikhul Khadim di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàgg fi lool te wér mook mbooleem ñi nga xam ne nii ñi ngi ci ginnaawam mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi koy jàppale ci liggéey bii muy liggéey muy liggéey suñu borom ñuy nuyu bokk yëpp di sant bokk yëpp di gërëm bokk yëpp di leen yëgal ni lii nuy def ndigal la loo xam ni dafa bàyyikoo ca kaw Cheikh Mahamadul Muntaxa muy loo xam ni suñu wayjur wu tedd ba Cheikh Mahamadul Misbaax moo jëloon ndigal li ca sëriñam boobu Cheikh Mouhamadul Muntaxa lu jiitu muy wàccub liggéey bàyyi fi naal yi fi bàyyee naal yi ñu fas ko yéene yeggale ñaari mbir nag lañuy woo nit ñi te kii nga xam ne moo fi nekk ginnaawam it muy sëriñ Babacar mbay Amar di rakkam jox ñu ci ndigal lu wér moom it muy ñaari mbir yoo xam ni moom lañu fas yéene benn bi mooy dooraat liggéeyub yeesal jullikaayub Serigne Touba boobee fa njaarnde bi ci des mooy taxawal fa bis boo xam ne bisu jàng alxuraan ak xasaayid la di ko def àddiyey Serigne Touba ci ñaanal tamit mboolem mag ñi nga xam ni nekkoon nañ njaarnde googee wala ñu jaaroon fa wala bépp woy dawlu ak fum man di nekk ci àdduna ñu leen ñaanal ñuy yëgal nag mboolem bokki jullit yi ak euh, ñiy seetaan lii ñëpp ak képp koo xam ni mbir mi soxal na la ni ñun day woote wunu am po woote wunuy caaxaan woote wunu ngir puukarewu waaye dañuy woote ngir dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dundal sunna googu weesuwul jàng alquran ak def ay salaatu ala nabi te cheikh mahamadul muntaxa cheikh mahamadul murtada mbàkke dafa waxoon ni salaatu ala nabi xasaayit doy na ci sëkk kon loolu moo tax nuy woote ñu fas ko yéene yi tamit di ko def ci bëccëg bi bëgguñu koo def guddi waaye bëccëg lañ ko bëgg a def saa bu ñu jullee tàkkusaan ñëpp mën a yeweeku delluwaat ci seeni yitte kon daal képp ku dégg woote bi nanga xam ne la ñuy woote weesuwul ñaar yooyu àllarba lay doon di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab dëppook ñeenti fan ci weeru avril 4 avril lay tombeel kon ñu ngi ñaan képp ku mën a ñëw rek nga teel a xëy si ndax bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi ñépp mën a yeweeku kii kon bis baa ngoog àllarba lay doon ñeenti fan ci weeru avril 2018 di bisub alxuraanul karim ak xasiida bu ñuy def foofe ca njaarnde ngir fàttaliku nganuk sëriñ Touba googee mu ñëwoon ca njaarnde waaye dafa fa tegaale xeeru barab ba sëriñ Touba nekkoon ñu ngi ciy sàkku teewaayu mboolem jullit yi taalibe yi xarit yi wala réeg am ji jàmm yi sëriñ isaa Dieng mi nga xam ne mooy jëwriñi kër sëriñ Misba Amar mi ngi soññi boppam di soññi mboolem tund njarnde ak mboolem li ko wër waaye di soññi it mboolem jëwriñi kër sëriñ Misba Amar yi sëriñ Daouda Jonn ak mboolem waa Mbusnaax sëriñ Alsaan Jaw ak mboolem ñi waa Thiès sëriñ Alsaan Jaw ak mboolem waa Thiès sëriñ Góora Jóob ak mboolem waa Dayre dakaar bàyyiwul kenn ak fenn danañ xëy jàng alquranul karim xasiida ak bernde fu di jotee danañ teg xeer wa buñu ñu jullee tisbaar bernde dellu siwaat def cérémonie religieuse fu ñu sëlmale tàkkusaan dal di ñaan yeweeku ñu ngi ciy sàkku teewaayu mboolem julit yi taalibe yi xarit yi wala réeg am ci jàmm yi noo ngi ñaan ku ci teew sunu borom faj say aajo barkeb sëriñ Touba salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu